ku baax ku tedd ki noo ngi lay siyaare bu baax te di nuyu ci turu Serigne Bassirou moom Serigne Fallou ak mboolem ñu ànd ak moom ci liggéey bi di leen liggéeyal ci alquran alquran mi nga xam ne mooy tool bu sëriñ bi te sunu borom donnale ko ko moomale ko ko defal ko ci lu mu mës a defal kenn mu def ci lu kenn mës def. mbooloo mi ànd nag di ko ci liggéeyal ci tool boobu ñoo ànd ak man ngir siyaare si la ak sant si la ci li ñu weesu lépp bi nga xamee ne danga fay nekk ak say kilifa doon seen jëwriñ luñ mas a nekk lu ne ànd nañ ci ak yow bi nga demee ba doon sëriñ bi it buñ jaaxlee ci seenub liggéey dañuy dellu si ba ci yow leeral la fi ñu toll. fi ñu toll nag li ma ci njëkk a fàttaliku te barab bii tax sama xel dem ci mooy man mii li ma ci dugal mooy damay doomi sëñ daara suñu change bi bi mu doonee doomi sëriñ bi ci boppam daa féetewoo jàngale mu di liggéeyam kon doomi sëñ daara laal lu laal daara laal ma waaye dafa mas a tiib gii. seeti sëriñ Basiiru sa waajur wu tedd bu baax woowee bàyyi gi mu bàyyi woon tukki booba tax biñ ko ko yëgalee mu ne ndax day saaliwu damaa defe ne ma dikki dafa juum mu ne ko moo ne sang boo de ah defe naa ne saaliwu xoolaat ko bu baax xoolaat ko muy moom mu ne ah bisimilah kon mu ne ko ah mbaa jàmm la lu xew <laughs> mu ne ko jàmm la xanaa namm la ba mëntumaa toog rek moo ma seet si la yaakaar la jiitu loolu. dana jege ñaar fukk la ñaar fukk ak lu topp yu mu gëj Mbàkke ah, bi mu egsee mbakke sax dafa soppi ko ci moom lool ndax gëj gu mu fa gëj yaakaar li may wax lépp yaa ma koy gën a xam ndax daaw leen gëjee te daa ngeen waxtaan nit ñi laa bëgg ñu xam li may wax mu ne ko waaw waaye yow moom del toog rek ndax li ñu war a ne li ñu bëgg ne ñun ñëpp war ci yaa nu ca nekkal te mooy alxuraan kon nag ñëpp la war a seet si waaye war seeti kenn yow toogal te ne ci liggéey bi rek liggéey boobee mu ne nag te ñoo ñëpp ñu nangul ko ko mooma may tey jii ma mën a ànd ak waa alxuraan ñëw seet si la seen bat xonq na jaaxle nañ jàq nañ fam nañ kenn ci ñoom tëj ko tëj doomi daara tëj waajur ya te mel ne nar nañ leen a toroxal ngir liggéey liggéey li ñuy liggéeyal alxuraan te yemut ci loolu njëkkoon naa am te mi ngi wéy di am te gag nañ jaaxle nañ toolub jàmbu nag boo ci liggéey ba gis loo xamul dangay dem ci borom tool ba yëgal ko ko ndax yaa fi nekkal sëriñ bi te sëriñ bi moom alxuraan maa ngi fàttaliku bis boo xam ne bi ñu indee article yoo xam ne arrangé wu daara yi la leen neex lañ ca bind te loolu bu wéyee du baax ci daara dañoo ñëw ma ànd ñu ba sëñ Sidi Muxtaar ñu leeral ko ko mu ne ma demal ngeen dellu te seen xel dal sama bakkan ko fekke liñ wax li liñ liñ ci wax du am du am danaa ci taxaw bay ba ngeen dem sama bakkan du ko fekk seen kanam yéen ñëpp yaakaar naa ma jàpp ne loolee mu ca def it yéen a àndandoo liggéey ba ndax lu ma sane lu ne yéen ko ànd te lu mu def yow loo ko defal te foofee mu ne it fi nga ne nga dolli ci nag yow sa waaru bopp boo xam ne alxuraan dafa bokk sëb liggéey xam-xam dafa bokk sëb liggéey ku la xam-xam loolu lii nag di loo xam ne ñaari yëfa ci am dangay ngaa yilif njaboot gépp sañ leen a digal di puso it buy ñawee ni ko sa waajur wa nekkee woon ba gis nañ ci réew mi li nga fi ñaw lépp lu jaaxaloon ñëpp la kon buñ demee ba alxuraan jaaxle war nañoo ñëw boo leen digalee ñu def boo leen teree ñu bàyyi sart yi nga xam ne nag moo dox seen digg ak luwaa yi te luwaa yi mën naa ne li ci ëpp ay organisme international la yoo xam ne doxuñ ci lislaam atte woowuñ ci lislaam te waman lam yaxkum bi ma ansalallah fa ulaika hum zalimun wala fa ulaayikumul kaafirun wala fa ulaayikumul faasiqun luwaa yoo xam ne ay nit a daje ba mu neex leen ñu ànd ko bind bu ëllëgee mën nañoo xëy xëy dindiwaat ko nitug lislaam du ca mën a tënku cent pour cent maslaa ko cay bàyyee waaye du doon du mën a tënku mu mel ne nag luwaa yooyu dañoo moomut seen bopp ba di ci tënku luwaa ci bitim réew lay jóge ba tënkaali leen waaye lam leen di tënke mooy da leen di won ne gone gi kenn waru koo tëj gone gi kenn waru koo jëng jëng moom yi nag di lu fi yàgg neexu fee dinni neexut a bàyyiloo nit ñi lu dul nag muy sa ndigal ñoom ñii boo leen ne bàyyi leen jéng ñu bakko ñi leen koy tere it boo leen ne bàyyi leen ñu continuer jéng bi ñu bakko ñu ñu ñu bàyyi leen ñu jé ñu continuer waaye daal li ma gis mooy buñ ci waxut duñ jóg ci lii di jaaxle bisu seen ñu jàpp kenn ñu ànd ak ñoom ñëw ci yow te loolu moom dañ ko war a lijjanti mu féete boor benn yoon mu jeex njaboot gi yow la ñuy déglu boo joxee sa kàddu ne digal naa leen ngeen bàyyi kenn bañ a mu jeex mën nga leen bu la soobee it nga wax ak ñi leen koy tere leen bàyyi leen ñu am jàmm ñoo xam nu ñuy yare seen i njaboot ñu yare ko di waaye daal jaaxle nañ jàq nañ te yaa fi sës kii nga xam ne jàpp nañ ko itam bu ñu sañoon lañ ci bëgg ñoom dañ ko ci am ndax buñ ko ci amee muy kersa ci ñoom di gàcce ci ñoom te mooy dañ ko fekk ci liggéeyam jàpp ko tëj ko toroxal ko fa waajur yi jàppale leen toroxal leen te suba dañ koy àtte lislaam nag bëtam xonq na te yaa fi nekkal sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa fi nekkal yonent bi yor lislaam kon nag ñoom biñ jaaxlee tamay doomi daara moo tax ma ànd ak ñoom ñëw ci yow xamal la ne ñii jaaxlee tax ñu ñëw te bu moog la ko jébbalee man wàcc naa loo leen wax ñu def loo leen tere ñu bàyyi ñun itam noo ngi jégalu kàddu yi dañoo jaaxle te amuñ lu yow rek moo tax ñu ànd ak ñoom ñëw jërëjëf. yi yëpp it maa ngi ci. alhamdulilah. dafa leen di nekk nag. Mm-hmm. Mm-hmm. lii sax daanaka mën na mën na mën na koo mën na koo doon. yónnee naa ci. nañ bàyyi ba xam. Mm-hmm. nu ñuy def nu ñuy àtte. foofu moom mën naa doon tàmbale. te lu mel noonu laa doon nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu lii yàgg yàgg naa ko xalaat bu yàgg. naa ko xalaat bu yàgg ndax euh, suñu dajee mu rëy mu ñu fi defoon Touba. ba suñu Abdou ma ko wax. waaw dégg naa ko tey jii waxtaan naa ko tey jii. loolu moo ne ci man ba léegi. boobu tiit maa ngi ci. waaye dafa am bu ma leen dégg rek. néeg gi nag loo mën na mën na mën naa bañ mën naa bañ a ndax maa ngi leen déglu ci ate boobu mm-hmm. bu ñu àttee ba noppi mm-hmm. danaa xam ne alhamdulilah alhamdulilah xalaat ji ma xam ne mm-hmm. maa ngi ci woon muy xalaat ji danaa seet na ma ko àndee bokk yi jullit yi fi ne mbokk kilifa diine yi fi nekk mhm. ñu waxtaan mhm. wax leen bëgg mhm. wax leen bañ wax nos ko loolu foofu rek la ñu ndax ndax mbirum mbirum réew la du mbirum moo xam ne dañuy wax rek mbirum réew la mbirum doxeenu réew la te réew mi wax dëgg yàlla réewul islam ba quatre-vingt-quinze pour cent islam kon luñ ci amatul lu dul nag faj ci lu naqari Eh, loolu loolu loolu suñu bakkan mënu ko war <laughs> ko mën a fekke ndeysaan ndeysaan suñu ah, bakkan bu ko mën la am kon loolu na ngeen xam ne ci ngeen ma fekk si mm, mm, mm. ngeen mu fekk nii ko suñu waxee ñii la ñii la ñii la ci nekkee ba ba ànd ceeg moom ci ngeen ma fekk loolu moom maa ngi ci lii ma leen wax fekkoon na ma ma wax ko sama làmmiñ ma wax na am na loo xam ne muñ ci àggee man damay woote damay danaa woote kilifa yi diine yëpp ci Tuuba te leen nu waxtaan seet leen bëgg ak lan bañ mu déposé ko moo xam ci président la jëm moo xam assemblée la loolu rek koy faj waaye wax yii génn du tëj génn ngeen du ko attee ak loolu koy dañ koy delloo ci yoon dañ koy delloo ci yoon constitution bi te dañ koy delloo waaw benn ñu ñu nangoo ñu leen bëgg mm-hmm. wala ñu ñu soppi. soppi seen constitution rek wala nag. jërëjëf Mbacke jërëjëf. ñaar yi rek jërëjëf Mbacke. loolu moom fi ngeen jigéen ma fekk. jërëjëf ma soññ. jërëjëf Mbacke. waaw loolu rek la loolu rek la dafa am fu mu leen doon nig rek. dafa mu leen doon nig rek fu mu leen fi am fu mu leen di nig rek. waaye nig loolu ma ginnaaw ginnaaw daa ngi àtte suba. maa ngi déglu bi rek. tubaarkalla nañu àtte ba noppi. benn bu fekkee ñu woyefal du tee ma ma ma ma ma continuer xalaat ci moom. seen mm-hmm. ñu seet nan ko nan la ñu mën a amee. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye bu fekkente ne nag at ni seen at def lañ bëgg a def kooku mm-hmm. du ma ko du ma ko du yàgg bis laay daal di woote mm-hmm. kilifa diine yëpp ma tere leen fii alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi foofu loolu ci ngeen ma fekk jërëjëf Mbacke nga suñu xel lool lool nga suñu xel lool dëggal nga jërëjëf dafa fekk ne dafa fekk ne rek mm-hmm. il faut nu maslaa waaye waaye nag noo ñàkk nag na loo xam mun mënuñu ko ñàkk fu mu yem <laughs> fu mu war a yem mm, loo xam ne mënuñu ko ñàkk loolu dañ koy topp dañ koy topp ak ñoom mm-hmm. muy doxinu réew mm-hmm. waaw mm-hmm. ba mu dellu ci ñu ànd ak ci ñu bëgg wala ñu ko topp ko seen tabarkal tabarkal tabarkal tabarkal war na leen waaw rawatina Sénégal gii nag ah, waaw moom kooku la mu ñu alxuraan ci am mën muñ dara <laughs> Moussa Moussa jot na cant gi waaw. sëriñ bi asalaamaaleykum. ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu mbooloo mi. di la ziyaara bu baax. di la jéggalu bu baax. alhamdulilah. di feddali suñu njëbbal ak suñu taalibe ci yow. gis ci yow rek jëmmi sëriñ Touba ji. gis ci pas-pasam ba gis ci bëggam ga. gis ci liggéeyam ba. yàlla na nga fi yàgg lool lool lool te wér lool lool lool. naadam yi nga yóbbu ko yëpp ba mu sës te ñu ànd ko yow. suñu xel dal na suñu xol sedd na dañoo waxoon ne bu ñu dikkee fii fi yow bëgg nga dikk sëb nopp loola ñun suñu ajo faju na man nga ci zahir man nga ci baatin benn bu nekkit boo ci jógee aajo dina faju te kàddu yi ñu fekk nga wax ko te saa saa bu ñu masee tase ak yow wax nga ko xam na ne yow yaa ngi ci yaa ngi ci ci nga nekk ci lañ lay fekk bu ñu demee ci lañ lay bàyyi kon gëm nañ ne yow yaay suñu wéttal yaay suñu ndimbal yaay suñu jëwrin te mat nga lépp sëkk kon ñu ngi ci sa gannaaw di la yaakaar te biiru ci la laqoo te la ñaanal faw di la seedil Cheikh Abdou Samad mii sanq ci yor yow dama ko nuyu mu ne ma gëj naa laa gis ma ne ko jàmm bari rek waaye saa bu jàmm ñàkkee da nga ma gis la nga gis moroom morom saa bu bët xonqee ba suñu xel dem ci yow suñu xel dem ci moom def ko muy suñu hamzatu wasl boo xam ne suñu diggante yow moo fi dox saa su nekk te yitte ju ñu am daara yitte ju mu am mooy yitteem moo tax moom it ñu ngi koy seedeel di la seedeeloo ci sa kanam di di ko ñaanal di sàkku nga ñaanal ko ba nga xam ne yéenam yii mu am ci liggéey la liggéey liggéeyal Serigne Touba lépp dina àgg gi sant bu baax di gërëm bu baax jërëjëf la ngeen xam ne ñun ñu daal kenn leen ci yéen rek <laughs> loolu mooy li ci am solo kon ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan